tey nan nga jàngatee combat bi Modou Lo Boy Niang 2. waaw ah, xanaa kontaan rek xam ne da koo a daan ko. de loolu moom méttiwul. la fois passée de moom wax nga bis say wax yu gën a yow ak yéen ak. Ama Baldé kontaanoon nag gars yi <laughs> mais tey yoruma singom. tey moom da nga kaa jëfee à donc waa Pikine buñ fi jógee mën nañoo dem mbër yi ñu xool keneen esaay kan moo des sax concours boo xamante ne moo war na ko mën a jël bëreeg moom jeex na kon mën nañoo dem jaay fukki jaay tamit buñ jëndee bal bu dëgër bi dañ koy jënd da te bàyyi bëri fii moom Modou moo fi moom Modou Lo tey mun loolu mun nga maa jàngatale combat bi Modou Lo Modou Lo Ama Baldé bi Modou Lo Boy Niang yaa yaa may jubaloo sax ah ndam li nag wax dëgg fa yàlla boolu bett kenn da xam ngeen ne ku daan Ama Dan ma ama dan mburu pikin yeb bo ñaa ko banyak jaaxal bo ñaaxal la te day doog a day day soog a ci lamb kon xam nga ne bu ko Banyak, daane rek waru len jaaxal loolu dafa fa yàlla mais bo ñaan dafa mën a bëri Banyak, banyak wax ci moom lu sëdd dafa xawa yaru waye bu fi jógee mën na dem jaay fu bi jaay billahi bo ñaan nga bëgg jaay yi fu gi jaay làmb gi dafay amati benn wàll comme Modou la ñu daan paa nga papa baa ngi daan ko ba tok ci kawam kon kay Modou nekkatul paa Modou Lo gay jeexal na waa bëgg moom yéen a ma waa Pikine saytaay waa Pikine buñ demee nañ ñëw. mu xool keneen kan la ñuy ko ah, desaat de. Ah. waaye en tout cas boo demee daal nañ ngeen yaakaar ne mën ngeen a bëree ak moom. ah yéen war ngeen laajte lool ah yéen saytaane ngeen de. saytaane na jërëjëf yéen ak Balla Gaye revanche bi. loolu moom du ma ci wax. Ah. loolu du ma ci wax de muur mi ci war wax bu ci waree wax rek dina ci wax. ci wax lan ngay lan ngay wax sa papa Lo. ah di ko rek di wax ne bett ñu woor parce que yàgg na tàmmal nañu ko yàgg nañu koo defal macha allah ko micro loolu la lay wax ci moom ñun ñii def ñuy woo dañuy yéen ni yéen ni li mooy rek tax wax fa ku baax la allah am ko yàlla dafa jàmm mais couronne bu ñu naan ndax mën na joxe ñi naan mënuloo day bàyyi. couronne bi moom moo ko moom moo ko liggéey moom lu mu mu def ko ci ñun dañuy bëri wax de pareegu. pareegu leen si te am nañ boole. nga ni ay paa ngeen waaye. paa waaw paa yi de mooy ñëw di yi. ngeen mais am ngeen doole. la doon bu mel doon bu mais lan ngay lan ngay wax sa papa lan ngay wax sa papa Modou papa di ko wax ni la la koy wax na gëna a góorgóor rek gën a yokku entraînement yi jëli di gëna ñaaw rek. jëli di gëna a ñaaw jëli di gëna ñaaw. mais xana nak da ngeen fi ba leen. waaw xana da ngeen wara ba ngeen wara war wa bàyyi nak xor ji benen secteur. ñom buñu ñu bàyyiwul duñ bàyyi dinaa la daw ñu virgule daw ñu yota yow ne yota lan ngay conseil lan ngay wax Boy ñaan ah diko wax ni ni rek xala la mu dem jangi jàngiwaat beure te am fit ñemee bëre na Lo ba Modou Lo gis nga loxoom bi yow gis nga ko. non loolu mënul ñàkk ci laam loolu mënul ñàkk ci laam bëre sa bu mënul ñàkk la rek. mais en tout cas moo ko ko la yow gis nga Lo bi moo loxo bi métti na de xam eh. ne kon coup bi jël na yeeg. ñu intéressé te indil nañ ñu ko kay amatu benn problème. Modou dafa dama wala yow ko man gisuma ko non yow gis nga Modou Lo mu mu bànn loxo bi di nuyu gars yi tamit ba bu ma dugal image yaa ngi siiwal ko TV yi. Modou ba mu ñëwee léegi gisuma ko yaa ko gis. Eh, gis nga ko sa yaay gis nga ko sa papa ba mu dem nii. waaw jo joxal ma sama xarit bi. ñun daal lañ koy ñaanal yàlla ndam li yal na ko ji yàlla def na def na li muy def nañ sant yàlla. Modou moom amatuñ amatul lu ñu amatuñu luñ koy wax amatul lu muy prouvé li làmb la woon rek. làmb nag bu amee lu nekk dina ci am wax du nekk dina ci am jàmbaar la ñaanal nañu yàlla na ko ndam li yàlla na ndam li seddu bii ni galaas ci moom yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wér ba ndamam li mu doon ndam li seddu bii ni ci galaas moom parce booy ñaar tamit xale la rek ñoom ñaar yam doom la rek daf doon wut ñàkk na na wutiwaat leneen yàlla may ko ci ndam kantaan ak leneen ay Balla Gaye yooyu yëpp kooku moom suñu problème kooku instant bi ko moom loolu rek la ñuy kii. bi nga njëkkee saa yi toog nga dégg ñu ne Modou Lo daan kontaan rek man xamoon naa ne Modou daan moom mission bi à conclure. <laughs> maire Pikine moom jël nañ ko ba pare. <laughs> mu nekk nii xale bu judd Pikine loo ngay sant. Ah! de bu juddu Pikine at nii ba déwén loo ngay sant booy am booy dem am ah. moo doo way sëñ ñaar ah. sax loo la sant école loo la sant burxaan ah, loo la sant sama seen tay si nga loo la sant

waaw ndax ay biddewaar moo tax nga jaay sa. waaw kay moom loolu suñu mbooloo suñu papa la. te noo leen bëree tey. man man xanaa xamoo man combat bi seetaanu ma ko. ah combat bi seetaanu ma ko. seetaanoo non non man da da man non dara. lan ngay conseil wax ah moo loolu daal maa ngi koy ñaanal daal du mu def Ama Baldé ak Boy Niang Eumeu Sène ah na ko def yeneen mbër. yaa ngi ñan ah Balla day xaar. Balla Gaye xaar Balla doy na baax na ndax la garaawul. non garaawul. yéen su ñu laajee Balla rek gars seen gàdde bi changé. non garaawul kay merci rek. ah ndax moo mën. Mau sax de ah nyari Gaye ñaari yoon leen daan waaw bëgg nañ mais Modou Lo daan na Eumeu Sène ñaari yoon daan Boy Niang benn yoon daan Lo moo mën Eumeu Sène waaw mu ngi noonu nag Modou Lo Modou Lo moom moo mën ama kii Eumeu ah Balla Gaye moo mën Lo Ama Baldé loo koy Ama Baldé dafa war a suñu jëm ini mulu mulu kan la wara a bëree daal sax instant ini saya malah lagi saya gisee moom loolu. bi tegal ma ko rompoy ma Abdou bi ku bëgg na ñoo jël. rompoy ma Abdou. waaw tamit jeex na. couronne bi. waaw couronne bi. eh waa béykat waa Parcelles bi. dañoo apa Ada dañoo Kamu suñu mbër. xale la judduwul. Memang Modou Lo lu tax du takk téere. Hmm? lu tax du takk téere. déggu ma. lu tax Modou Lo du takk téere. non dara bëgg-bëggam la rek. confiance bank ngeen de ba nag may ñëw di ma napp ah du question napp rek dañoo xam. mais lan wax ñaa tamit. ñaa na dem jaay war ci ñaa di mbër nga naa ko jaay fukki jaay. na dem jaay fukki jaay kan. booy ñaa kan. boo ñaa mooy boo ñaa moom moo daan Balla Gaye Balla Mbu Gaye mu daal Lo. waaw na Lo merci. question bi rek sax nga laajoon nga waxoon ci. sant yàlla rek di dolli ci li ma sant. di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn. maa ngi gërëm àddina bi yëpp nag maa ngi gërëm àddina bi yëpp. bàyyi ma wolof bàyyi ma séeréer bàyyi ma tukkuloo wax ñëpp a bëgg te ñëpp ay ñaan yàlla nga am fay yàlla yàlla fay aw ma seen fay mënu ma leen a fay bëgg kenn mënu koo fay di leen sant rek di leen gërëm maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñëpp bu ma limee damay juum bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp. waaye muy tey tey mu doon Ama Baldé weer fi koy muy bëri booy ñaar ak wax ñu juboon ci ci signature contrat bi. loolu yëpp am ci léegi mu dem ba. ba mu juróon tuuti coow ci seen diggante loolu ba mu njëkkee am ci signature bi nan nan la woon loolu. ci ne wax yëfi làmb la rek waxi làmbala la rek. dama bi daa mënul wax. te te tere nga ko tere nga am na ñuy waxaat naan est-ce que du defaat beneen revanche ak Balla Gaye. déedéet ak léegi ñu naan ñu naan nag Moodu comme mu jeexal na xale yi na na bàyyi bëri. macha allah macha allah yàlla ko yàlla lafal cat te musal ko ci ndox musal ko ci cat ak làmmiñ amiin musal ko ci catu jigéen catu góor catal mag catal ndaw amiin voilà yéen allahumma ñun daal dañ koy ñaanal yàlla rek dañ koy ñaan